mais lan nga ñëwee Bijou. Bijou dafa dafa ñëw tiital xale yi. damaa ñëw tiital xale yi ndax damaa ñëw ak légèrement attentivement bàyyi sama lépp mu la gérer. stressé wu ma defuma dara lu ma def ba du ma tiital nii gone may topp mais ma may daan xale bu ndaw. bis xale yaa ngi lay tendance. am na robinet sax foofu. bis boo ko togg bi xanaa. ma bokk si. ah gisoo ma ji dama leen a xaw a. kan ngaa kan ngaa ñii laa àndal ñii. ah en ce temps yow. ba nga duggee ci sëy ba léegi nag maa bàyyi. yaa ngi si jàmm. waaw. naka togg bi mbaa yaa ngi koy waajal. waaw togg bi nii rek koy waajal rek. tey moom waaw. ah yaakaar naa war nga mën a togg de. comme mën nga jaay def grillade rek bu ah. jongo ma rek tubaari saal foofa ko. ok. ah c'est bien. maman vulgaire. ah. Rama noo def yow rek la ñuy topp dëgg la yow rek la ñuy seetaan ana kii. bëri na ay waaw 2h lépp yemb na waaye faaw def mu gën a bëri rek. mais xanaa 18 safar bi tey nga koy tàmbali. safar lañ tàmbali rek xam nga ñun lii yéene lañ ci demee rek. tubaarikàlla ndax ku la fees loo moo la yàqloo te bii dungoo ne topp moo tax nag dañuy jëm suñu alal ak lépp lu ñu mën rek ko taaral bis ba mu taar. ndeysaan mais ñan nga àndal ci togg bi ñan nga àndal ci togg bi man ma waaw nee ma yaay sa baax. ci togg bi maa ngi ànd ak sama mag sa mooy kan suñu yaay bi mu ngi ñëw def forte marche tubaarikàlla embouteillage bi sama jumel sama doomu nday Nogay ma nii sa seddoo sama seddoo sama jumel moom laa àndal ci yëpp yi tubaarikàlla macha allah mais tey togg bi togg bi mbaa du am xuloo du am xuloo wala da nga koy comprendre rek tey tubaab la <laughs> ku ma woo si xuloo su ma ne la baal naa la. baal naa la kon xuloo ah. sama xarit bi jël ndam. ndeysaan waaye su paasee ko mu sa jumel la ndeysaan kon maman ci ci kanam ñu xool li nga def ci waañ bi. waaw incha allah naa bokk ci ñi njëkk a ñam nag. waaw waaw. nga ñàkk. waaw waaw. Moussa Ka. tey ma non tey damay di place deux heures. du côté Sénégal bu juróom-ñaar. instant yi xoolal instant yi instant yi yow mag yi dañoo tiit ndax damaa ñëw ak légèrement attentivement stressé wu ma benn yoon. ah bon. <laughs> yow la tey ji tubaari kàlla masala mënoon nga ñoo xeer mëno dañuy jël suñu ñu mën a yaay xalifa xale yaay seen yaay ndax yaa ñu bëgg yaa jël xale yi nga xamante ne am jom nangoo liggéey am fulla tey ñu ñëpp dañoo nangoo bëgg nga toog fii royal ñu ñu la yàq bi toog ñu naan la njaaga nangul yaaga ko waaw lan la di

Isaac nag laa <laughs> woote nii waaye wuy nii waaye Fatou yaa propre nag. Isaac laa woote. waaye wuy nii Fatou teel ngaa xëy de. ba pare nga jox ko ma suba gi nii nii rek. la sax nekk. ci loo ne. Eh? mais naka mu mais tey loo fi indi. lan ngay toog Fanta looy toog tey. Jibi bàyyi ko mu wax. Jibi la tey xam nga lan laay toog. waaw. toog mag yi njëkk rek laay toog. waaw. non man yow laa faral de. Eh. man nga faral yow man nga faral. mais yaa ngi si jàmm nee naa la tubaarikàlla macha allah jàmm ko gàccaana mënoo ma ci natt yi mënoo ma ci gerte mënoo ma ci sóoru mi dëgg la ko yàq togg ci man a yàq ko ci bool xanaa xanaa da nga ne man man man fàttewu ma keroog euh, weeru koor bi li nga li nga li nga déressé li ma déressé dëgg la ma néew ma lu dul togg rek nañ bàyyi ba ci kanam rek ci kanam yéen di laajte kontaan naa ah ba def famille ngeen ko def. yéen ñoom ñoo ko bëgg daaw dañuy àgg. ah aywa dëgg gañewaat gañewaat ngeen di ma ci def loolu du fi am da ngeen ko waxtaanee. da ngeen ko waxtaanee. ah def ci gàtt. yéen da ngeen am problème fruit de mer seen famille. da ngeen ko waxtaanee. dañoo am ne jur bi dañoo am complexe ay fruit de mer ay crevettes. Ah, non dañoo xam ne ah, non ñun génnuñu fee génnuñu Sénégal cosaan rek aada cosaan la ñu wax. lépp ci réew mi lépp ci réew mi. waaw bëri na kaay ma jongo ba nga d'accord waaye li benn xoolal jur gi jur bu réew boo xam ne nañ am baa bu réew boo xam ne feeskat yi dama leen yërëm parce que dara du ko neex wuy ma may toog ma xam saal eh. bu am ay laxas yow yow ah. ay la laxas dañ la laaj moom comme si moom. waaw loolu ba ngeen ma waxee ma ne leen surprise. xoolal naa yow am xoolal naa. <laughs> ci laay añee di dañ ko nëbb nag waxtaan i laay añee ngeen commencé an kay ni ngeen jëlee seen bëri de avec bëri waa mbir dangay bàyyi lii ko sama mbokk yi nag yàlla loolu la dafa maa ngi nii man ko yaay ci bàyyi maa ngi waa dëgg la nag bii ngeen la de mais bii ñu sañ sañ waaw lii sama ji waaw lii sama ji. waaw oui man it maa ngi ci biir suñu yëpp. waaw fii lu ko xam ne. donc day loo fi nar a tey. nan nga ma ñëw. ñëw ñu ay ñu tuuti ay producteurs. c'est la famille. ah da nga commencé tendance ak. non tendance ba damay wax xam nga bii dama leen waxoon ne leen lépp xale koy def. waaw toog sax xale koy def. su nekk nii suñu suñu c'est la famille. maa ngi ñëw la fi toog. ku nekk di gérer. donc jàpp suñu ñaambur jàpp suñu sànq. waaw dëgg neexul nag waaye ñu ngi ñu toog fii ma am génn mën naa de. waaye la ngeen toog nii mosu ci. aywa dina neex tey nag dinaa mën a yem bu may commencé loolu yóbbu ma dina ma far. am na fi def bu yoon bu baax def bu ko def ay afro def bu la joxee bu la joxee. mais alors Corinne Dieng mais qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu sourire là. dama woote Eugène de yaa ne ma dindi ko. hygiène daaw dama woote hygiène. fii laa ci maas nekkoon. ba pare sama plat bi xam nga lu ko tuddee sama plat tey masque bonnet gant masque bonnet gant. masque bonnet gant. sama plat tey bii. Ah, sama plat tey bii ah. masque bonnet gant. le plat tey eh, il s'appelle masque bonnet gant. Ah. ñu ngi ñëw. gisoo xale dañuy xaar ñu rendi jasiti rek ñu commencé teg. waa léegi yow lan nga war a toog crocodile. ba tey nangoo ñu moo gën a raar xam nga man biisu ngoone man dama bëgg luy dund ci géej yàq mënuma teggi luy géej man dañ man dama dama bëgg luy dund ci géej. stand bi rek boo dëgg yàlla bi rakku ne liggéey tàmmee nañ ko. daaw ajmaas la woon sama rakku yaay la. kii sama rakku yaay la. yaa ngi dégg kii papa la bokk ak sama yaay kii yaay la bokk ak sama yaay donc stand bi moom sama stand famille lay nekk chaque fois oh hasard amul oh applaudissez oui ma yàlla naa jël paie yàlla naa jël paie yàlla naa jël paie yàlla naa jël paie nit day dem boppam dañoo mën a togg ku ko leer ku rëngeeme demi série dama ko jël. dama jël demi série.